بسم الإله ينمو الهائي بلا مناهي ولا انتهاء ak moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ci jëf ju rafet ji nga xamee def na ko dañuy wax ne ataytul xawsa baariha loolu su ko defee rek dañuy wax ni def na ko fu mu ko war a def mooy ci barabu maamam bi nga xamee ni wax na ne bi muy dem bokk na ci lim dékkaane mooy jumaayam ji mboolem ku fi jaaral Seexul Xadim radiyallahu anhu dox ci liggéey ba mu yëg si fii waa daayiratu muxaddimatul xidma nag ñëpp xam leen ci wàllu social ñëpp xam leen ci taxawal liggéeyu Cheikhul Khadim bi ci jumaa ji ak ci yeneen acti ak activité yoo xam ni dafa nekkul ci jumaa ji muy ci incha muhaadaraat yi nga xam ñu ko def si jumaa ji te nga xam ne daayira bi def naa 94 la sosu woon ba léegi ñuy liggéey liggéey bu am solo boo xam ne day jëm ci wàllu diine day jëm ci wàllu ijtimaa yi wàllu social ba ci ñëw ci wàllu ndow yi nga xam ne ñu ngi ko tàmbali woon depuis 2005 depuis nga xamee ni mbooloo mu bari ñoo fi ñëw ñu leen di dogal soxna maamam xarim sax moom Cheikh Mamadou Mourtada nag tey mu ne woon day ñëw ngir bokk ak liggéeyu maamam bi day bokk ak ñoom wàllu social day bokk ak ñoom wàllu iftaar def ko ci weer woo xam ne ñu xam ne weer wi dafa nekk weer wu màgg weer wu sell soxna maam xarim ñëw na préparé ne insha allahu rabbi liggéeyu maamam bi daf cee bëgg a participer ci wàllu social ndax moom dafay liggéey ci wàllu social képp koo xam ne xam ne li muy dox wàllu social la waa daayiratu muxadimatul xidma nag képp ku leen woo ci wàllu social wala luy jëm ci liggéeyal mawlaana Maam Abdul Xadim ndax loolu mooy xidma ndax euh, sëriñ bi radiyallahu anhu dafa am ñetti mbir yoo xam daf koy wax mooy al amalu wa kasbul xalaal wal xidma bu dee al ilm bu xidma lay doon mooy liggéey nit ki ba pare jubli ci yaamu yàlla soxna maam xari ni comme xidma la ca maamam lañ koy defal kenn du ci man ci wàllu social la ci wàllu social kenn ku ne xam na li borom bi subhanahu wa digle ci alladina yunfiquuna amwaalum fi sabilillah ñi nga xam ne dañu jël seen alal di ko joxe ci yoonu yàlla suñu borom subhanahu wa taala ak ñi nga xam ne dañu fekk ñi nga tabax junniy jumaa yoo xam ne ku fekk ku dog koo xam ne dafa koor ba ngoon jo ko ñu ñëw fii day jumaay Touba mosquée ànd soxna maam Xari mu wax la nag mi ngi sant yàlla di ñaanal sëñ Muntaxa bu baax jotaayam bi yàgg ba mu lëggee sëñ Tuubaa ko bëggee ak mbooleem njabootu sëñ Tuubaa bi mu wax ne mi ngi sant euh, daayira Muxaddamatul Xidma bi ci taxawaay ci lëggéeyu sëñ Tuubaa bi ñu yor ci jumaa ji ak mboolem ndigali sëriñ Tuubaa yi soxna maam xëy dafa wax ne liggéey bu toll nii ay at daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi ko yor mu yàgg am yéene def ci loxoom waaye yàllaa ngi su ko dogal ren mu am bunt bu ko ci mën a defee ci ndimbalal ak jàpp na rek daayira Moukhaddamatoul Khidma mu ciy sant bu baax di leen ñaanal seen taxawaay yàgg te li ñu liggéey lépp ñu am ci ngërëmal sëñ Tuubaa moom nag yàlla def koo nattoo mu ne yaar moom la bëgg ci addunaam dafa wax ne moom dafa nekk nit koo xam ne social dimbalee la bëgg dimbalee nag dimbalee ba dimbale dàq nag dimbale njabootu sëriñ tubaa naa am sax dañ koy waxee noonu waaye ñoom am nañu lépp waaye dugal loxoom ci bi sëñ Touba moom la bëgg lool. ñi ko fa jàppandala nag muy waa daayira bi yàlla na leen yàlla fay lu kawe seen jot ba seen yéene ak ci barkeb Serigne Touba mu wax ne mi ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal ñëw fii bi ñëwee wax dëgg yàlla ni mu fi fekk kawe mi ngi àndoon ñi nga xam ne moom la bokkal di liggéey ci gerte gi muy waar Rasiya ak gone yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw ak jigéen ñi ñëpp ñu ñëw ndax lii bu ko defee du moom dong moo ko def daf koo ànd ak njaboot gi xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi ak yeneen opérateur économique yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw ñuy liggéey muy wax sëñ bi laat na nga ko jottali sëriñ bi ak cant boo xam ne te wax sëriñ bi mu ñaanal ko lu man ren bu dee nu man lu ko kawe di barkeb sëñ Tuubaa ak moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ci jëf ju rafet ji nga xamee def na ko dañuy wax ni ataytul xaw sa baariha loolu su ko defee rek dañuy wax ni def na ko fu mu ko war a def mooy ci barabu maamam bi nga xamee ni wax na ne bi muy dem bokk na ci lim dékkaane mooy jumaayam ji mboolem ku fi jaaral seexul xadim radiallahu anhu dox ci liggéey ba mu yëg si fii waa daayiratu muxaddimatul xidma nag ñëpp xam leen ci wàllu social ñëpp xam leen ci taxawul liggéeyu Cheikhul Xadim bi ci jumaa ji ak ci yeneen acti activité yoo xam ni dafa nekkul ci jumaa ji muy ci incha allah muhaadaraat yi nga xam ñu ngi ko def ci jumaa ji nga xam ne daara def naa 94 la sosu woon ba léegi ñuy liggéey liggéey bu am solo boo xam ne day jëm ci wàllu diine day jëm ci wàllu ijtimaa yi wàllu social ba ci ñëw ci wàllu ndow yi nga xam ne ñu ngi ko tàmbali woon depuis 2005 depuis nga xamee ni mbooloo mu bari ñëw fi ñëw ñu leen di dogal soxna maamam xarim sax moom Cheikh Mahamadou Mourtada nag tey mu ne woon day ñëw ngir bokk ak ñoom liggéeyu maamam bi day bokk ak ñoom wàllu social day bokk ak ñoom wàllu iftaar ñu xam ne weer wi dafa nekk weer wu màgg weer wu sell soxna maam xarim ñëw na préparé ne incha allahu rabbi liggéeyu maamam bi daf cee bëgg a participer ci wàllu social ndax moom dafay liggéey ci wàllu social képp koo xam ne xam ne li muy dox social la waa daayiratu muxadimatul xidma nag képp ku leen woo ci wàllu social wala luy jëm ci liggéeyal mawlaana abdul xadim ndax loolu mooy xidma ndax euh, sëriñ bi radiallahu anhu dafa am ñetti mbir yoo xam daf koy wax mooy al amalu wa kasbul xalaal wal xidma bu dee al al amal mooy xam-xam ak jëfe xam-xam bu dee liggéey sëñ bi daf koy woowee kasbul xalaal mais xidma lay doon mooy liggéey nit ba pare jublu ci yaamu yàlla soxna maam xari ni comme xidma la ca maamam lañ koy defal kenn du ci man ci wàllu social la ci wàllu social kenn ku ne xam na li borom bi subhanahu wa xamee ne danoo dog danoo koor ñu jël seen alal defaleen ko ci dogal borom yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi mel ne ñu tabax junniy jumaa yoo xam ne ku fekk ku dog koo xam ne dafa koor ba ngoon jo nga joloo ko moo tax soxna Maam Xari liggéey bi nga xam ne daf koy liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi liggéey bi nga xam daf koy liggéeyal Serigne Touba ci wàllu social liggéey bi nga xam daf koy liggéeyal baayam bu baax ba nga xamee bi nga xam ne ci la Cheikh Mahamadou Murtada ci tabax ay école ci tabax ay soxna Maam Xari ci loolu la jóg ngir jëm ci wàllu social lépp loo xam ba tegal na fa tànkam mu a a juróom baaxu bàyyi wal kon Cheikh Abdoul Ahad soxna si mi ngi leen di sant di leen gërëm ci at yi fe fexe ni mi ngi leen di tàll loxo bépp liggéey boo xam ne rek woo na xidma woo na mu juba ci loxoom incha allahu rabbi pare na pour lépp loo xam ne rek day symboliser liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ni moo gën a mag ci sumb yi mu bàyyi woon le 4 mars 1932 lañ teg xeer yi ba le 7 juin 1963 Cheikh Mouhamed soxna maam xari nag moom ci loolu lay dox mooy politique sociale ndax bu doon si turi baat bi ci wàllu arab siyaasa fi lugal arabiya danañ xam ni mooy ñu defar ab gox defar aw xeet defar leen pour la nga xame ni mooy mooy islaahu dawla mooy defar société bi ba nga xamee ni société bi dana nekk loo xam ni dana am jàmm dana am dimbalante dina am solidarité dina am taawun loolu la soxna maam xari Mbàkke Cheikh Mouhamadul waaw xeeti bernde yi mboolem loo xamee ni nit daf koy jëfandikoo ci bu dogee incha allah soxna si indi na ko ci mboolem def ci tàndarma suukar café mburu lépp loo xam nit koy daf koy soxlawoo ci mboolem mashrubaat yoo xam nit ki bu dogee daf koy soxlawoo soxna maam xari Mbàkke daf ko jël daf ko mënal participer ko ci liggéey maamam ja liggéey waajuram bu baax wax ci ndigalu cheikh ah, cheikh Mouham ah, sëñ Muntaxa Mbàkke mi nga xamee ni wëllëreem la xaritam la ñu gis seen alaaka wa seqa bi nga xamee ni moom la am ci loo xam ne taxaw liggéey maam ju baax ji si la sëñ si Muxaddamatul Xidma ñu ngi delloo nuyoo Serigne Mame Mbaye ak euh, oustaz euh, Serigne Mame Mor Fall di leen yóbbante itam nuyoo ci soxna Mame Xari Mbacke di ko ziyaara bu baax di ziyaara itam rakkam bu baax ji mu àndal di soxna Mominatu Mbacke ak kilifa yu tedd yi mu àndal ñu ràññee ci commandant bari ak yeneen kilifa yu bare bare bare yoo xam ne xam nañ leen ci dëkk bi ak yeneen kilifa yoo xam ne bàyyikoo nañ ci biti dëkk bi mu ñëwoon tey nag ngir indi participation ci ndogu yi nga xam ne moom lañuy amal fii ci jumaa ji euh, ren nag soxna si euh, yónnee fi ci fan yi ci ginnaaw wax ne dafa bëgg tànn bés boo xam ne moom dafa koy jagoo euh, financé ko moom ñu ne ko bismillah ndax liggéeyub Serigne Touba la liggéeyub Serigne Touba asamaan la asamaan kenn du ne sa morom toppal ma xool kenn ku nekk am nga ci wàll kenn ku nekk am nga ci cër noo ko bëgg noo ci bëgg euh, feeñee rek ñun yaatal nañ li nga feeñe en li ci am solo rek mooy euh, li li dem na àgg te ña ko tax a jóg bu ñëwee itam ñu organiser ko nañ ko war a organiser la dogal na itam mu laaj bilan bi li ñu daan jënd lépp bis bu set par bis lu ñuy jënd nañ ko ko bindal ci këyit ñu bindal ko lépp euh, ci këyit jox ko ko biñ ko bindee ci këyit jox ko ko mu indi dépense bi fii ci njaboot gi ne jërul mu di ko yóbbu këram wala mu di ko yóbbu fenn di ko fa waajale waaye na ko andiwaat ci ñi nga xam ne ñoo ko daan def lépp ñoo defar lépp comme nañ ko daan defee euh, euh, waajal yëpp ba mu egg yi ngeen yëpp ñoom ñoo ko defar ni ñu ko daan ni ko defaree woon démb te noonu koo ko defaree suba incha allah noonu lañ ko defaree. bi montant bi ñaata la. waaw bilan bi par bis bu fekkente ne ci li nga xam ne wàllu consommation la li nga xam ne moom la dépensé ci consommation dana egg ci 1 million 150 mille francs par jour moom la ñuy jëm. Euh, lenn lu nekk itam euh, këyit bi lañ ko diiral rek li nga xam ne moom la ñuy jënd papier moom mu ñu jënd ay bagages am ñu préparé ñu ñu defaral si tey kan bu dul soxna si daayira bi moo koy financé waaye daayira bi ñu ko waxee amul jëm ñi taalibe Serigne Touba yi ñoo am. yow sa ñaar dërëm mi ngi ci man sa sama dërëm mi ngi ci suñ maam bay téeméeram mi ngi ci keneen keneen téeméeram juróomi téeméeram mi ngi ci noonu lay demee ba weer bi jeex amul xaalis boo xam ne dañ koy wadeel bi sa teg ko nii muy xaar déedéet mbirum Serigne dem sax bañ ne suba doo am dépense boo ci waaye nag musu ñoo mosu koor mosu ta jàll bàyyee ñoo koy bor loolu mooy mbirum Sëñ Tuubaa léeg-léeg mu dem ba mu yàgg nga jàpp ne sax lii ndax da nga mën a eggalee sax fukki fan yu njëkk yi waaye da ngay dem ba mu àgg doo am bor mën naa am nag aw des du am waaye mbirum Sëñ Tuubaa soxlawul des li mu soxla mooy li mu soxla mat li mu soxla mat loolu la soxla te loolu day am gis nga tey dañoo xëy soxna ci ñëw ne day joxe dépense li nga xam ne moom la ñuy def ci wàllu euh, ndog yi donte loolu rek sax xëy na am na yeneen dépense yoo xam ne jëmul ci loolu ay déplacement nga am ay téléphone nga am ay waxtaan ngi am yeneen ay action sociale yu ñuy def ci yeneen barab mi ngi am daaw at mi at mii ñu gis génn sunu bilan bi ñu bi ñu noppee rapport bi ñu ko defee jox nañ ko seex mu Cheikh Mouhamadul Mountakha ku ci sa dërëm dem bind nañ ko te dërëm bu nekk dem fañ ko dugal bind nañ ko te euh, loola dépend euh, rapport booba dem na ci 43 millions année bi passé ren tam xamaguñ la ñuy doon parce que eggagut ñiy seetaan te bëgg a liggéey nañu xam ne li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne bu leen jëmale mukk bis bi nga xam ne bisub koor la ak bis bi nga xam ne bokkul ci koor loola bu ñu koy wax dañoo bëgg action sociale yi di yokk ci koor gi ndimbal waxtu wu nekk la baaxee waaye waxtu koor nag daf cee ëpp solo Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu lu mas lu waay masaan di sàkku ci moom bu koor di bëgg ñëw daanaka tënuñu tëluñu dara ak gan gi waaj ñëw waaye bu gan gi agsee di weeru koor lépp lu waay sàkk woon ci moom da nga ko am ba am ca lu kawe sa njort bu demee bay tàggoo dana tëlituñ dara gan ngiy tàggoo lépp lu mu am tam dana fexe ba weeru koor yi yóbbaaleel ko kon nag képp ku ne ci Sëñ Tuubaa nga aju te muy dëgg ci yow bu weeru koor jotee war ngaa geesu ñeneen ñi nga xam ne xëy na seen loxo jotul seen gannaaw gis ngeen fii ñu fi doge ñëpp xëy na am na ci ñoo xam ne ay kilifa lañu ku mel ni Sëñ Maam Mbay mi ak Sëñ Maam moom mi ñoom macha allah yàlla xéewal na leen loo xam ne xëy seen ndogul kër sax moo dàq ndogu li ñuy dogu fii waaye xam ne itam ñu ngi fii di wëndeelu di liggéey ci marché ba ngoon jot seen i kër sori bu ñu wàccoon bëgg ñibbi seen kër mën naa am duñ ko man te seen doole bariwul lool am na ñoo xam ne itam ñëw ci dëkk bi sanc fi di woor waaye amuñu lu ñu dogee ñooñu ñëpp ñu daje ci penc bi Sëñ Tuubaa dogal doge fi Sëñ Tuubaa dogal leen te Sëñ Tuubaa li muy def mi ngi koy jaarale ci loxoy taalib yi kon taalib bu nekk war ngaa mën a fexe ba bokk ci eh, njariñ loolu wara bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxawal Sëriñ Tuubaa foofu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa waxoon ne Sëñ Tuubaa dafa wax ne bu ñoomal xiyaame ñi teg jinne ak malaaka yëpp teew ñu yàlla dénkoon jamono ñëpp daf leen dajale kenn ku nekk mu laaj la sa tàggateefu àdduna ak loo ca defoon mu wax ne boo boobaa nag ku tudd ku nekk da ngay ñëw ñu tegal la lu mel ne àndaar ngay natt bu feesee ñu di la sant di la sant di la sant di sant ba ñëpp ñee la ñu yebal la àjjana su manqué ñu di la tànc di la tànc di la ba nga ne gàcce gi say bàyyi woon ma dem sa war a tànc bañ ma ko def sax moo gën Sëñ Tuubaa nag dafa wax ne bu boobaa moom dafa bëgg buñ ko wooyee ay taalibeem ñëw di feesali àndaar di feesali àndaar di feesali àndaar bañ ne ana ki nga xam ne bañ tuddee turam ba léegi kenn gisugu ko te waa këram rek ñoo ñëw di feesali àndaar mu wax na ne ku ku ko féetewul foofu nag féetewoo ko fenn lay tax ñu féete ko foofu nag action yu mel nii ci la bokk te mooy taxawu jaamu yàlla yi dañ daan wax sëñ bi dafa daan wax ne jaamu yàlla ci jaam yàlla yi waaw kon lii jaamu yàlla la ci jaamu yàlla